أعوذ بالله الله من الشيطان الرجيم salaamaaleykum mbokk yi daara Taysiroul Assir ci Dakar Petit Mbao si njiitalu Serigne Mor Sy Assa di directeur u institut bi Taysiroul Assir pour la mémorisation du Coran e l'étude des sciences de la charia et de la langue arabe dañuy jàngale di yar def xam-xam si tout tànk yi mbokk yi mooy fas yéene nag amal bésub tari di récital de Coran kañ lay doon dimanche 26 mai 2024 ñu ne ma ngay tàmbale 9h jàpp nag 15h30 bés bu am solo bii di bés mag ñoo ngi si woo mbooleem soppe alquranul karim ñoo ngi si woo nag ay mbokki boppam waa Thiène waaye tamit waa daaray alquran yëpp gis nag jiital mbooleem tay sirul asir yu bàyyeekoo ndax fàttewul tamit benn parent d'élève mboolem dëkkandoo yi ñoo ngi leen si woo mbokk yi bésub tari alquran bu mag bii nag dinañ ko fas amal si bile programme 9 h ñu amal mise en place des invités diggante 10 ba 11 xale yi nag fas wane seen bopp tarifa alquran midi discours élèves yi si français ak arabe amalit plateau ñu amal pause añ ba noppi julli nag ñu tàmbale nag jox kilifa yi ñu yëkkati kàddu nag ñu fas yéene 236 76 576 69 50 institut Taysirul Assir mooy amal conférence bu mag naka dimanche 26 mai 2024 ñoo ngi si woo ñëpp ñu si kenn bàyyi ñu ñenn inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi hanifa